délégation bi nga xamante ne euh, sunu président le président des cœurs le président lay Wade ak nawle doomam yi nga xamante ne ñoo ko wóolu ci opposition bi jox ko kàddu jox ko yaakaar ndax président Ablaye Wade dafay yaakaar ci Sénégal ñu ñëw seet si nag yaakaar yi tey ak ëllëg di Serigne Touba Cheikh Mouhanta Al Bachir yàlla na fi yàgg te ban yëg-yëg ngay am si bi nga duggee si biir ba génn. sant rek ak kontaante ak yëg ni lii rek moo mënoon a nekk cër bii nga xamante ne sëriñ euh, Serigne Mountakha xooloon na ko daaw ba ni ko yaakaar nga ci kër sëriñ tuubaa magum tuubaa nga ndax sëriñ Serigne Mountakha moo ñu waxoon ne Serigne Abdoulaye Wade assimilé nañ ko ci mag yi magum Touba yi magum Touba nag ku ne xam na murit bu ne xam na lu muy tekki délégation bii ñëw tey. magum Touba mi moo leen yónni ñu àndandoo ak opposition bi yëpp nga gis fi ñoom Mamadou Lamine Diallo tekki ñoom Bruno Delneville l' ancien premier ministre le premier ministre Abdoul mbay nga gis fi sunu kilifa gi nga xamante ni moo sës rëkk ci Abdoulaye Wade te rëkku ko muy le président Pape Diop ñu ànd ak directeur de cabinet le président euh, euh, le ministre Assane Diop ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëpp ñi nga xamante ne ñoo bokk ci opposition bi ñëw tey teewal fi le président Abdoulaye Wade teewal fii sunu candidat sunu frère le président Karim Meïssa Wade ndax ku Abdoulaye Wade am ngay doomam ngay militant ñëw nga tey ci délégation bi gis nga ni nit ñi sonne waaye nag dañu xam ne Abdoulaye wadd noonu la toll ndax koo xamante ni Serigne Touba moo la xool ban la magum murit nga booy ñëw sa ñëw ñëpp ko war a yëg tey mel na ñu nekkuñu ci opposition ndax jëmmal nañ bis bi ndax bisu sëriñ Touba la tey dañoo pa dañoo bëgg fa yéenee doon ay murit yu Baay Faal rek ñëw toog ci wetu mun taxaa ngeen dajeeg si biir ki nga xamante ni moom mooy le président Ousmane Sonko defe naa yéen daje si biir yëgoo la wala. jotuñu koo gis nag. waaye buñ ko gisoon tamit sant la rek ndax euh, opposition bi yëpp benn lañ te li ñuy xeex ñun ñëpp ñoo ko bokk mais xam naa bunt yi bokkuñu moo tax fi ñu duggee gisantewuñu donc ñu koy nuyu moom aussi. jërëjëf honorable maa sant. je suis Pape Sarr euh, je suis euh, le responsable de le coordinateur de la commission communication de notre coalition. Cette coalition est constituée du Parti démocratique sénégalais du Congrès de la Renaissance démocratique, de la coalition Jotna, de Bok gis et de AJPADS. Comme vous le savez, le Magal de Touba, le grand Magal célébrant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, est devenu un événement international qui va au-delà de nos frontières. Pour nous, euh, talibés mourides, et pour tous les autres Sénégalais avec qui nous partageons la religion et la croyance en Dieu, l'événement a un caractère particulier. Euh, c'est la raison pour laquelle notre coalition constituée a dépêché ici aujourd'hui une forte délégation. Il me sera impossible de citer la composition de la délégation, mais vous voyez que tous les responsables euh, sont là, qu'il s'agisse des responsables politiques, qu'il s'agisse des honorables députés, et qu'il s'agisse également de nos camarades militants, frères de Mbaké. Nous étions donc venus euh, saluer le Khalif général des Mourides, lui témoigner notre dévotion, notre ziar, et à travers lui exprimer toute notre solidarité à la communauté musulmane, en particulier aux Mourides, et particulièrement ceux qui sont venus célébrer le, mariage, grand Magal de Touba ici aujourd'hui. Nous partons satisfaits. Nous avons recueilli les prières euh, du calife Euh, nous lui avons également exprimé notre message. Nous sommes pour un Sénégal meilleur. Toute notre activité, toute notre réflexion est articulée autour du Sénégal, des problèmes du Sénégal, comment faire pour avancer, pour que le maximum de Sénégalais soient à l'aise et puissent vivre en croyant en Dieu, en faisant de religion dans notre pays. C'est vraiment ça le message. Nous étions venus dire que nous sommes engagés nous sommes mobilisés pour ñun ñëpp ñu ànd liggéey senegal tabax Sénégal ci jàmm ak ci salaam teg ko ci diine teg ko ci ngor teg ko ci valeur yi nga xam ne moom lañu suñu askan jaga jagleel ñu fekk ko si te war koo mun a jàllale suñuy doom ak suñuy sët.

Nous ne sommes pas venus pour, nous, pour répondre au, au président Macky Sall, qui, sur le sujet d'ailleurs sur lequel il s'est prononcé, à parlé plus en, en, responsable de son parti. Vraiment, nous sommes des talibés. Nous sommes une délégation, nous sommes venus représenter des milliers et des milliers de camarades, de militants, de frères qui auraient souhaité être avec nous ici, qui n'ont pas pu le faire. Nous sommes venus apporter leur message. Et ce message la l'avons transmis au Khalif général am na ñun ñëpp suñu kilifa la on lui a transmis le message ah moom nee na bégg na ci sant nañu encouragé nañu nous allons poursuivre bés bu ko jaree aussi nous reviendrons ici pour encore lui proposer lui dire ce que nous voulons faire et dégg mu ñaanal ñu parce que nag parce que nag xéewal bu ñu fi yàlla defal sëñ Touba waaw monsieur Pape Sarr ci li nga xam ne moo jëm seen teewaay tey ñu nemmee ko fi wax que ça soit ceux qui sont au pouvoir ak ñu ñëw def ziara mais ci biir mel ni am na luñ ci nemmee ko ku nekk yaa ngi jéem a wane sa position ci li nga xam ne mooy classe politique lan nga ciy ñun wane wuñu position ñun dañuy ñëw màggal si dañoo nekk ci ay organisation politique ay organisation citoyenne dañoo nekk ay talibé ngeen ñi nekk ay xaritu talibé am na sax suñu mbokk chrétien yoo xam ne ñu ngi ci délégation bi loolu moom mooy Sénégal ñu ànd ñun ñëpp parce que ñun ñoo bokk gis-gis ni ñu war a defaree Sénégal ba mu jekk ñun ñoo ko bokk seen normal aussi que bu événement amee ñu mën a am délégation ñëw présenter mais vraiment nekkuñu en compétition avec personne il y aura autre moment un autre temps pour faire la politique te bu buñ ca yeggee da ngeen xam ne mën nañ politique mais tey vraiment dañoo ñëw rek pour euh, ziar suñu sëriñ talal talal ko loxo sant nañu ñaanal nañu également je crois que. Ouais. ok euh, euh, xam nga suñu coalition daf ci am parti PDS mais Ablaye Wade nekk président bi mais Ablaye Wade nag daa am lu doon Sénégal. dañuy ñëw aussi jox nañu yóbbante nuyoo yóbbante ziaram ah, moo tax euh, camarade bi wax ma naa ko jàllale wax Sénégal yëpp ne euh, président Abdoulaye Wade euh, mu ngi ziar ah, mu ngi ziar mu ngi xalif général def na ko yónnee na ndawam jël na parole wax ko mais également mu ngi ñaan pour que Sénégal gën a jëm gën a jëm kanam sëñ bi aussi nee na kontaan na lool ci loolu également donc euh, ñaanal nañ ñu vraiment ñaanal nañ ñu en général c'est euh, une parenthèse les journalistes aiment les mais vraiment ça nous le message nous n'étions pas venus faire la politique vraiment aujourd'hui on n'était pas venus faire la politique nous étions venus faire nos ziar o Khalif général du Mourid, qui est pour nous une autorité exceptionnelle, mais également saluer la communauté Mouride présente ici, mais également la la communauté, ceux qui célèbrent chez eux, ceux qui célèbrent à l'étranger. Nous étions saluer tout le monde, ziar tout le monde, et donc recueillir les prières et ça fait, et donc nous allons, nous allons vous, remercier. Merci beaucoup. Et on se reprendra très bientôt. Ouais. Ah oui, ah oui. Il y a une très grande particularité à la délégation, oui. dans la délégation. Oui, c'est ça. C'est que c'est composé aussi des députés parlementaires euh, Mbaké qui sont là, dont Serigne Cheikh, euh, dont Serigne Abdou et tout ça. Nous avons toujours un plus par rapport aux autres. C'est <laughs> ça.